waaw salaamaaleykum euh, dama ñëwoon rek vraiment pour indi si quelques ay détails yoo xam ni euh, déclaration suñu ambassade bi nga xam ni moo nekk fii ci Maroc Al sekk Seck bi mu waxee ni am na trois cent soixante-dix-neuf Sénégalais yu jot ay ndimbal gars yi bare bari ci posé question di ma woo di ma laaj donc mënoon naa def vidéo bi vraiment pour leeral ci li nga xam ne moom laa jotagoon a xam li ma ci xam mooy ñooñu biñ leen di dimbale dañoo dem ci plateforme bi xool seen situation biñ xoolee seen passeport ak yooyu noonu ci leen xam ne ñii kat dañu nekk ci blocage ñeneen ñi tamit dañu nekk situation bu difficile léegi nañ leen mën a xamee ni ñooñu noonu ñoo nekk situation bu difficile grave situation de vulnérabilité par rapport ak ñeneen ñi ah peut ku nekk ñoom ñoo xam seeni critère mais li ma ci xaw a jaaxal rek mooy amatu Ba dafa waxoon ni ñoom dañuy jot ku nekk cent euros te finalement 350 euros lañ jot. bi ñu laajee ñi nga xam ñoo doon séddale xaalis bi ñoom nee nañu ñoom dañoo jot seeni ordre rek ci ay exécutant lañ donc kon laaj bi ñu ngi koy laaj nga xam ne moo di Amadou Ba wax ñu lan moo tax affaire bi ñu ko wàññee waxuñu ko nit ñi lan moo tax ñu wàññi ko aussi voilà euh, te aussi beneen affaire daf mu Amadou Ba dafa waxoon ni euh, Moïse Sarr dina def communication vraiment pour wax ñi nga xam ni ñooy sénégal yi nekk à l'étranger kañ lañu jot seen xaalis. nan lañ koy jotee ak pays bu nekk lan lay jot ba léegi nii si réew yu baree bari xamuñu par exemple ñoom ñaar la ñuy jot et cetera ñu ngi wax aussi tranche tranche bi ñuy wax man ci information yi ma jot nee na loolu bokkul ak douze point cinq milliards yi parce que douze point cinq milliards yi ñoom fii nii Maroc nee na ñoom jotagun dara tranche boobu noonu mooy li nga xam ni mooy lii ñeel Sénégal yi nga xam ne dañoo nekk situation bu grave exceptionnelle nga xam ne ñoo xaaragul mais boobu ba léegi mbas mi mi ngi am sénégalais ñi ngi nekk ay difficulté gars yi ñu ngi daw guddeeg bëccëg di leen jàppale mais lan lañ état du Sénégal di xaar pour débloquer sem boobu pour mën a distribuer te som boobu sax bu accès dafa jariñu dara ndax boo xoolee fii li leen jox 3700 dirham 3700 dirham mënu la gérer bu fekkee da nga nekk ville mel ni Casablanca nga nekk ci quartier boo xam ni dafa xaw a Euh, mënoo changer instant bi nii pour mën a wuti feneen fu gën a moins cher parce que état d'urgence sanitaire la ñu nekk mënoo génn wala boog c'est très difficile xam nga donc loolu lépp war nañ ci mën a xalaat te aussi ni ñu jotee xaalis bi xaalis parce que boo koy jot il faut nga dem ba consulat ba ñu wàññi xaalis jox la. mais y' a y' a dix plus de dix mille yoo xam ne inscrit nañ ci plateforme boobu est ce que dix mille sénégalais yëpp dañuy dem ci dañuy dem consulat seen xaalis te aussi dañ koy séddale est ce que consulat moom jox nañ ko moyens yi nga xam ne moom mooy tax tey jii mu mën a dem fépp pour mën a def liggéeyam parce que du sénégalais yi am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay villes yoo xam ni peut être consulat bi amu fa ay représentant wala boog accès ba difficile na wala boog ñoom mënuñoo jógee foofu mënuñu ñëw ba Casablanca récupérer seen xaalis état du Sénégal yaakaar naa war na ko mën a yëg war na ko mën a xalaat bu ko defee ñu mën a xool bu baax na lañu def te aussi nit soxla soxlawuñ kese kese xaalis soxla na aussi un soutien moral ndax sénégalais yi nga xam ne tey jii ni ñoo nekk ci frontière yi bloqué wu foofu ñu leen jox xaalis boo xam ne doyul pour ñu mën a relancer waat ak sénégalais yi nga xam ne tey jii noonu génn. braver l'interdit maanaam état d'urgence bi ñu jàpp leen def leen en quarantaine Sénégal yooyu noonu tey yan yan dispositif la état du Sénégal teg pour jàppale leen pour accompagner leen ñooñu noonu tey même bu ñu éligible sax mu mënuñoo génn quarantaine bi dem ci seen xaalis xam nga donc vraiment euh, ñi nga xam ñoo ñuy représenté euh, di suñu ambassade man yaakaar naa ne war nañoo mën a dépasser communication institutionnelle bi ñu nekk maanaam di bind ay communiqué ñu ñëw ci Sénégalais yi ñu wax leen. même bu ñu mënut déplacé wu parce que instant bi di jamono ji matewu ko mais su suñu page Facebook ambassade par exemple war fa mën a def ay vidéo di fa poster di wax nit ñi ñu mën a dégg parce que communiqué de presse institutionnel ñoom dañuy def le tout ba duñ ci def chiffre duñ ci def ay détails liñ ciy def rek mooy ay yoo xam ni voilà donc nañ gën a wàcce communication bi tamit ki nga xam ni moom mooy euh, mooy Sarr moom xam na sénégalais à l'étranger bu baax ñun fii dañ ko daan woo depuis Casablanca depuis Maroc di ko wax ne ko suñu situation boobu ñu ngi woon étudiant ne suñu situation fii la toll lii ak lii ak lii dañ daan déggoo bu baax na mu disponible woon na gën a disponible waat pour mën a communiquer ak nit ñi tamit suñu député yi nga xam ne ñoom lañ fi fal sincèrement war nañoo mën a xolaat bu baax ñun indemnité ak salaire yi leen di jox ndax boo fi demee Casablanca nga laajte kan mooy député Sénégal bu Afrique du Nord mais la ko mën a wax ça veut dire ñoom liggéey ba nga xam ne moom lañ doon def defuñu ko te boo leen laajee ñun la ñun amuñu ay moyen mais amuñu ay moyens ñoom mu suñu leen di dégg ñu taax loolu ñu amuñu ay moyens ñoom ñi ngi wax ne deux billets d'avion lañ leen jox te beneen bi dañ leen dawloo mais loolu est ce que ñoom kaas nañ ko est ce que wax nañ ko ñi ko war a mën a wax wala boog dem nañ ci presse bi fekkee ñoom seeni kilifa nanguwuñ leen a jox ay moyens donc nañu organiser waat nañu xool bu baax li nga xam ni moom lañuy defal nit ñi vraiment nit ñi sonn nañ fii ci Maroc ñu ci ay jafe-jafe am na ñoo xam ni xamuñu fu consulat bi féete am na ñoo xam ne amuñu sax ay kayit pour mën a inscrire loolu lépp war nañ cee mën a xoolaat bu baax a baax a baax ndax nit ñi sonn nañu jaa ngeen jëf